diine amoon na ndam démb jaar ci yoonu tijaan ndamam la delsi na jaar ci seyxu tijaani amoon na ndam ndam bu jaar ci yoonu Tijaan ndamam la dellusi na ci Seexu Tijaan wax diine amoon na ndam démb jaar ci yoonu Tijaan ndamam la dellusi ndamam la ci Seexu bay amoon na ndam démb jar ci yoonu Tijaan ndamam la del sinaat jar ci Seexu Tijaani diine amoon na ndam démb jar ci yoonu ndaamam la del ci Seexu Tijaani bay Seex Xalifa Ñas yow siggil nga diine lislaam ta aw ñoñam ñu ko war di seetaani diina amoon na am na ndam ci yoonu Tijaan ndaamam la del si la ci Seexu Tijaan bay doon nu Xalifa Ñas mi donnoy alxaji abdallaay mi donnoon yónneen donno Seexu Tijaani diina amoon na ndam dem bu jaar ci yoonu Tijaan ndamam la del sina jaar ci Seexu bay Seex Tijaan maam Abdu buy fiical faacil jaadi maam Xalifa bay Seex Xalifa Ñas يا مفعولي ثاني هنا أمنا أمنا دم بجاتي جانا مملا دلسلا جارتي شيخو باي سيخ جانا بادعين سخلو بوتي جاسي خيختي الإسلام سامم جامو تخو كيروك باتي باجاني هنا أمنا أمنا دم بجاتي يونتي جانا maamam la del sina jaar ci Seexu bay Seex Tijaan tariqa xëy taxaw soxlawaat ku farronqa ñam saa bay ba moo taxaw bocci jaasi Tijaane diina amoon na am na bu jaar ci yoonu Tijaan bay seex tijaan noonam ya del siwaat te juumam ya ak ki jàkkaam lislam di laqatu ñépp naan ko ndeysaane diina amoon na dem bu jaar ci yoonu ki jaar ndamam bay Seex Tijaan yow rekk yaa taxaw jël sa jaasi songu noonam l'islam jarat cëram say tiitar di saawaane diina amoon na am na ndam jaar ci yoonu Tijaan ndamam la del si na bay Seex Tijaan yow rekk yaa taxaw jël sa jaasi songi noonam l'islam jëlaat cëram say tiitar di saawaane diina amoon na am ndam bu ci yoonu Tijaan amam la delsiyaat jaar ci Seexu bay Seex Tijaan hem na xalifa ñes mi la dippee sërif bi Tijaan xamoon na bis ci bis yaa fi nekk ndaanaane am na ci yoonu Tijaan ndamam la dellusi na jaar ci yi ak ñu ñoom ñoom ñépp sago nan siggil nga soo daane diina amoon na ndam am aca def leen ni ku xam leeneen jëlal te nga bàyyee ñu sunu sërif bi kuy tiitaroo sa jiit ñun dee jàpp nañ jaane ku am leeneen jëlal jëlal te nga bàyyee ñu sunu sërif bi ana soppay xalifa bi kuy tiitaroo sa jiit nañ jaane kuy jiit ñun de jàpp xalifa nañ jaane kuy tiitaroo aja def leen la ko kuy tiitaroo sa jiit ñun de jàpp nañ jaane ne ku xam leneen jëlal te nga bàyyee ñu sunu sërif bi kuy tiitaroo sa jiit ñun de jàpp nañ jaane ku am leneen jëlal jëlal te nga bàyyee bi kuy tiitaroo sa jiit أي الله برسا خل أي ما يم أكيد رانغا أم تلام في دينجي أكلرم قتي جاني وأم لين جلال جلال باي نقص نسرين بكوي خليفة بيالا في أكتبير